sufiyanke yi mën a am xadis yu bari ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wutee si ñee leen du njub te ñëpp sukkandiku ci wax yonent xam nga ne loolu mooy bëgg a ci diine bi ku moom mu am ndey ak ku ci diine faqad zakara tudd na alxanafiya waa abu xanifa yi samaaniyata wa sittina amran juróom benn fukki mbir ak juróom yu yàq li salaat ñeel والمالكية ومالك حوالي ثلاثين تدل نتول نفنوير بير وشافي وشافي سبعة وعشرين نيار فكر جلوم نيار والحنابلة وأحمد بن حنبل حوالي ستة وثلاثين نتول نتي فنويرك بن وابو حنيفة تدلن سوسان تبت بير يوغم دفا xam مالك dafa yàq julli Chafin yi vingt waa xanaa yi trente six ah xaa ñoom ñu bokk benn diine waaye kenn ku nekk da nga ballalu ci wax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay xam-xam jullit ñi nangul la ko su fekkee bi ballalu ci wax yonent bi sallallahu alayhi ay xam-xam ñeneen nanguwuñ ko ndax la ndax bokkuñ damit kii ci fiq la ballalu kii ci ay jikko la ballalu lan mooy différence trafic bi moo gën a garaaw ndax jukki bu naan la dëddul àddina jaamul yàlla julli saxalal yàlla rek jikko boobu kay loolu amul gravité li am gravité xanaa kay mooy hmm? ñii ngay jaamu yàlla ñoo jaamu yàlla lu wa yumkin dana jàpp ne lil mar ñeel nit ki an yetarxamu sànni asilatun ay laaj xawla haadil aadaadi ci lim waxaw li maxtalafu ak ca lañ nañ fii ci moom mi mufsidaatin ci yàq julli ah, nit mën naa laaj lu tax ñu wutee ci mbir yi yàq julli lan moo waral lim yi xanaa jëlewuñ ci kenn mu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ok waaye xeera an na kullahum ànd ak na ñoom ñëpp mujtahiduuna way góorgóorlu lañ yusaabuuna dañ leen fay jamean mboolem seen lil musibi ñeen la ko jubal ajraani ñaari tiyaaba wala muxti ñeen la ku juum ajrun benn tiyaaba ku jubal am ñaari tiyaaba ku juum am benn tiyaaba xataa ki juum ci ñoom dañ naan ko li nga def wér waaye am nga tiyaaba wasa yazalu dana yendu annaas nit ñi taabaduuna di jaamu bi ma seen ngir ya ila axiri xayaati dunyawiya ba ci mujj ak dund àdduna ba pencam yàlla doo dégg ngiram Aboubacar ngiram Omar ngiram Shafi ngay dégg ngiram Ahmad ibn Hanbal ngiram Malik ngiram Abu Hanifa te duñ ay saxaaba moo tax ma ne xaayida bay nit di wax naan bu doon njub xeet sàngam am ko xaayida boobu wérut ndax zaalika fadlullahi lu yàlla wax yuuti man yashaaw waxul yuuti nangam de yuuti man yashaaw yàlla ku ko neex mu jox nga ngëneel hmm? yuuti man yashaaw lu yàlla waxaat yaxtassu bi rahmati man yashaaw kon bu ko neexee mu jël ngëneel jox ko ñu mujj ñi bàyyi ñu njëkk ñi looloo waral mu jël ngëneelu xam-xam ci xeetu yonent bi jagleel ci jagleel ko ñoo xam ne nii duñ sax saxaaba duñ taabeene yi bàyyi saxaaba yeeg taabeene yi te ñoo gën Hmm? dañ bàyyi caaxaan yi dañuy def yàlla nga neelam ku ko neex la koy jox xam nga imaamul mahdi yi ci mujj xeet bi lay ñëw abubakar ko gën foofu am lu rëy loolu dugal ñëpp ci lislaam feesal suuf si màndu te xalifa yonent yi sax mënuñu woon loolu seen jamono kon faddu laa yuti man a mooy li wér waaye foofu ngëneel moom diw dana ko xam ba diw door ko xam loolu du dëgg loolu ñoom loolu lañ nekk di wax wa man yabxasu kuy gëstu fii su jóotu sax wi si su jóotab jamaj xool lax dari bunt bu rëy la ci jàngale su jóotu jamaj te juróomi barab kat ñoo mos a ñëw si jëmm ji yonent yàlla Muhammad sallallahu barab rek ñu génn ci ay masala yu dul jeex ci juróom yooyu rek lu tee ñu wax nañu ne bàyyi leen nit ñi ci juróomi barab yi yonent bi jama joon ku gëstu si sujjootab jamaj laa yaraa du gis illaa xamsata ahadis lu muy juróomi hadis hiya moom mooy hadisa hadisa ibnu Mas'ud حديث ابن مسعود اك حديث ابو سعيد الخدري اك حديث ابو هريره اك حديث ابن بحينه في خمسه مسائل في جرم المساله جرم المساله مولا سلم سلم لما يلنتي بي من اثنتين في نهار رك ام نهار رك سلم الموت لكو فسجد مسجد بان سلام وسلم سلم لما من ثلاث سنين ترك ام نترك يلنتي على محمد صلى الله عليه وسلم sëlmal jug matari fa sajada mu sujud baada salaam wa bi ziyaadati wa nuqsaani ak si yokk ak am na julli goo xam ne bay sikk sàkk yokk na walla wàññi na moo mottali ko daal di kon am na ñaari rakk sëlmal mottali sujud ñetti rakk sëlmal mottali sujud sikk sàkk wàññi na wala yokk na moo mottali sujud wa qaama taxaw na min sunnatin si ñaari rakk wala mbiri saa taayawut moom xabla salaam la sujud am ñaari rakk jug ba mu pare sujud xabla salaam juróomeel ba yokk na juróomeelu rakk si julli ñeenti mu yokk si juróomeel rakk ba pare su jot juróomi façon jëme yi la yonentu mos def moom lañ takk ci juumi yonentu juum waaye borom xam-xam ñaata masal lañ ci génne hmm? lu dul jeex demal rek lu ne danga ko gis lu ne ndax wax nañ leen lii bidaa la ku wax bidaa la bidaa xam nga ne bidaa la alquran mooy alquran bu mbir amee wala udduhu ila la wa ila ulil amri minkum la alimahu alladina yastanbitunahu minhum ña mën a ballu atte yi danañ ko xam kon alquran mooy sant ñu ballu ay atte waaye dafa am ñu yegg ci degré boobu du ku jug rek mën a ballu atte kon borom nañ leen ko nangul ku nekk nag fànn ba nga jegoo ci xam-xam ci lol nga mëna wax xam nga ñaari saxaaba mësu ñu wuté ci jangam alquran kenn ki jël kenn gam kalam ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nako ki ni mi jangé ni man xawmu yoonte na jangal mu jang yow jangal mu jang mo ñaan yéen di ngeen jang wërna ñoom ñaan ñep ci yoonte lañ jë takat kenn manam ku nekk sa jangam morom jaaxal la yoonte na bu len di wuté bu wutee rek alko maanaam xadis boobu loo ci léegi mooy boo gisee loo xamut ci sa mbokkam jullit waaye xam-xam boo yeggul la bu ñu moom ndax loolu mooy indi alkaande ci xeet léegi ki indi wutee googu kooku moom bidaa la def wala sunna la def xadis bi daf ko aaye loolu xam bi bu fekkee kii dafa jàng alxuraan joo xamul nga weddi ko ba wuteeg moom ñëw ci yonent bi yonent ne bul def loolu loolu mooy boo gis bul def loo xamul rek weddi nit ku baax bu la andi leen njub da xam ne kii rus naa sosal yàlla yaa xamut xam-xam bi yaa fa yëgagul nga màndu teey boo teeyee wut ko ci xol bu sell rek yàlla na la ko xamal walla boo nga xam ne lii lu wér la dee yow xeggoo fa waaye boo jiitalee weddi jiital mbañeel jiital ay mbir yu ñaaw doo mës a yegg ci li waa jeeg kon yonentu dama bëgg ngay seetlu xadis bi bu leen wutee bu ngeen wutee alku ci lan ci yow gis nga waaye jàngaloo xamul nga weddi ko mooy la bul def loolu bul def loolu mooy bul def loo xamul rek loolu mooy alal xeet wi parce que lu tamay loolu mooy alal xeet wi mooy xeet wi yàlla garanti ne amul noon bu leen mën a sonal amut amul noonu mu mën a sonal xeet wi yàlla du leen alagandoor comme ni mu ko defoon xeetu njëkk yi waaye lenn moo leen mën alag mooy ñuy dóorante seen biir di fàddante fàddante lu indi lu mooy wute moo tax yonent loolu la doon dawloo xeet mu ne bu leen di wute yéen ñaar ñëpp di ngeen jàng wér na te bëgg cee reyante kon ñaari nit danañ nekk ci lu ba pare di reyante di fàddante te ñoom ñaar ñëpp dañ nekk wér na waaye nag ndabal yonent bi sallallahu alayhi dafa yaatu ku nekk ak la ca naan wa ma minna illa lahu maqaamun maalumun ku nekk am na maqaama bu la yàlla yemale yemal foofu rek te bañ a weddi sa morom gis ni dàqu koo julli dàqu ko woor dàqu ko joxe asaka dàqu ko jaamu yàlla ëppoo ko xam-xam ëppoo ko téere yooyu taalif nga gis mu liggéeyal lislaam lu ne nga ñëw taxaw bëgg a wane ne si caaxaan la nekk yaa nekk ci dëkk dafa xam loo xamul rek waaye li ngi fiiree ci lislaam nu ko la ci lislaam kon diine wahabi yi nga gis ñu indi teqalikoo ak xasante ñoom ñooy alak xeet bi parce que ñu ngi indi loo xam ne dafay tax ñenn ñi di dóor ci kaw ñenn ñi te loolu rek moo mën a alak xeet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te yonent dafa aaye woon loolu ku nekk ci lu yonent aaye woon nag nekkoo ci njub yonent ñu xam ne combat bi du julit ak julit combat bi julit ak yéeféer la wax naa ko ba taay ne leen internet yi nga xam ne international la nitu yàlla yi nit maanaam noonu noonu yàlla yi ak noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu lislaam bi ña ngi fay def ay vidéo yu bon di ko jéem a nag teg ci xam-xam jëlee du xam-xam bu wér waaye ay subahaat la ñuy indi ay lënt-lënt pour attaque yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sikkuroo nañu ci risalaam ci yonentoom attaqué l'islam attaqué alquran naar yi nga xam ne am nañ site yoo xam ne international la lu tee ñu tontu ñooñu xam nga man bu ma leen tontoon du yegg fenn. xanaa suba waaye tey du yegg fenn parce que man mënumaa wax ak ñooñu waaye su ma mënoon wax ak ñooñu kuréel léegi tey vidéo yi di daw lu ñu def danaa ko tontu mais ñoom ñi nga xam ne mën ñoo jàkkaarloo ñooñu au ñu jàkkaarloo ñooñu ak xeex gi nga xam ne nii noonu lislaam yi ñu ngi koy xeex jullit ñi ci seen néew doole fexe ba indi alal dugal ko ci biir gëm loo xale yi alal fexe ba jàngaloo leen seeni làng tubaab bi imposé nañu seen langue réew Afrique yëpp dugal nañ fa langue tubaab école tubaab bi ba réewi naar yi sax léegi ñu ngi jàng tubaab bi xiir fa lool imposé ñu seen jikko solloo ñu seen yére di ñu seetaanloo seen télé jël si ñuy doom def leen lu mel ni ñoom arab yi nga xam ne ñoom ñoo war a jàkkaarloo def contraire ba ñoom ñu naan dañuy xeex suuf bi dañuy xeex nangam dañuy xeex nangam lii du tardé lii tardé la. yonentu daf bu leen dóorante yéen seen noon mais yéen bu ngeen dóorante seen biir alku noonu yi song ñu song gu métti lislaam ne da ngay jàkkaarloog sa mbokk sa mbokkam jullit ne moom ngay xeex ak ndax nag dafa nekk si bidaa bidaa gi mooy lan mooy dafay tudd yàlla suba ngoon mais kii daf ñoo yëpp kooku amul fiiraangi ci lislaam xanaa yéen waa kër gi sax bu ngeen amoon problème ban noonu songu leen ngeen war a juboo xeex noonu bi ba pare door a continuer a régler seen problème ah loolu mooy yoon waa dëkk bi bu ñu amoon problème ban noonu songu leen pour faagaagal dëkk bi ma ne ñu juboo jàkkaarloo noonu bi ba pare door a régler waa seen situation bu fekkee lañ nekk dëkk ba ñor na leen waaye jël sa pétrole jox noonu yàlla yi tubaab yeeg américains yi seen xaalis ngeen yóbbu ko ci noonu yàlla di xaritoog ñoom ñu yoral leen seen sécurité ngeen taxaw ngeen da ngeen am firange l'islam firange bi mooy lan mooy dal seen mbokk julit yéen waroon ngeen a imposer nit ñi langue arabe comme nu tubaab bi imposer langue tubaab bi ci ci ci réew africain ngeen fexe école arabe yi bëri fi fexe di jàngaleeg jàngal seeni doom docteur xam nga ñu jàng seen école jànguñu fa dara kulliya qaanuun sharia luwa sharia ku la wax sharia naara ko moom foo toog jàng séeréer mais jàngal leen nit ñi mboolem xam-xam yi tubaab yi di jàng ndax ñu leen man ci benn côté jàngal leen docteur dañu mën a génne pétrole dañ mën a defaree avion dañ mën a defar télé du am ngeen mooy seen alal ju bëri ji jël leen ko jox ko africain yi jël leen ko jox ko doomi jullit yi fexe fu jullit nekk ci kaw suuf mu am doole ba pare xëyir leen ci jàkkaarloog noonu yàlla yi waroon na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diine mooy dina njub boo wute woon sa mbokku jullit am problème nga dem faj ko di lay wutee nga ak moom ci masala du tax mukk nga noonoo ko ndax sa mbokku jullit la mu ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah te al muslimu man ngaa wuteeg moom mais wutee comme waajur bu wuteeg la da nga koo yërëm am sa doom mu am problème. nga wuteeg moom mais buñ ko nee noggutu nga taxaw boo amee métti sa xol jug nangoo dara jot ko noonu lay julit di wuteeg mbokku julitam mais tey wutee bi ci diggante jullit ñi dafa mel ni kéeféer ak jullit ñoo ñoo ñoo wutee da ngay wuteeg sa mbokku jullit yéene ko torox yéene jël jaase dagg doo xam soo sañoon mu ñàkk su duggee safara sax nga kontaan ne waxoon naa ko gàcce la ngay bëgg a génne ci moom di ko di ko di ko di ko siiwal léegi-léegi sax nga sos ba askane loo xam ni moom nekku ci ana mbokkoo ko ana bëggante gi ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngaloon ana bennoo gi ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngaloon amatut moo tax dëgg-dëgg mbir mi du lislaam mbir mi politique la loolu waral seen politique bu demee ba dana daani seen nguur dañuy commencé bañ loolu xam nga soo di commencé woon nañ fi jàpp seen borom xam-xam parce que dañu doon politique ci turu diine bañ demee ba loolu neexatul leen nag xam nañ ne lii arrangé wu seen nguur ñu commencé dindi système boobu bëgg bëgg a installé bu bees diine du politique jullit jullitee mbokkam kon ku nekk mën naa naan ci yonent bi lu sama waaye waxtaan leen bu dee jubóo rek ngeen bëgg da ngeen jubóo mais bul jiital ci waxtaan bi mbañeel kon fuqaaw yi génnee nañ ay waxtaan yu bë ay ay xam-xam yu bëri ci juróomi xaddis xeet yëpp nangul leen ko moo dama laakin ne fuqaa waaye borom xam-xam fiq yi faraxu banqaasan nañ min hadir xamsi si la juróom tafriaatan ay banqaas yoo xam ne wasalal yegg na fi baadi mazaahib bi yenn ci ngiri ilaa xamsin ba juróom aw sitta asra wala maanaam ba fukk ak juróom aw sitta asarata wala fukk ak juróom benn xaalatan ci xaal sujjóotam jamaj am na ñu si génn fukki aal ak juróom wala fukki aal juróom benn te pourtant que yonent juróomi mbir rek la ci gën yasjudu dana sujjóot fi aasi moom aji juum li islaahi salaat ngi defar jullem bu bi ixtilaaf ñu am wuutee shadidin gu tat fi asbaab yi ci yan sabab mooy waral sujjóot ak ndax qabla salaam ngay sujjóotam baada salaam wuutee gu méttee métti ñu nangul leen ko su fi bi nga xam ne gis na yonent bi di joxe dog suba ak ngoon dee leen ko def mu joxe dog boo xam ne boo demee ci fekk alxuraan di ko santaane te tënkut ko yow nga nekk lu tax nga joxe dog boobu lu tax nit ñi di sax ci dog boobu di ko wér loolu ci nga ko noonee ba def ko yéeféer noonee yow sa mbokk julli lu may kurus bu mu téye billaahi boo jàkkaarloo ko yàlla nga ne ko diw dama koo bañoon ñee lu taxoon nga bañoon ko nga jëloon na ay bant buy jaamu yàlla di di ko compter yow am da am lekk sa borom yow rus war ngaa rus a jàkkaarloo yàlla ne ko banaa yéeféer boobu fële xeex sama mbokk julli lu tax ma di ko xeex parce que dafay compter buy jaamu yàlla mais lii lii war na ko mën a wax yàlla dafay compter bu yàlla waxee yow sa école bi foo ko teg loo koy wax nga ne ko école bi moyen la mooy la moom lu muy compter lan la am na ñoo xam ne kurus bant lañ koy laale te mën a maslaa ak tubaab bi mën a maslaa ak kéeféer bi mënoo mën a maslaa ak sa mbokku jullit waxoo dëgg moo tax affaire yi politique lay saf ak bëgg a teqale jullit ñi waaye lii du lislam te nag wax naa la yonent daf ko aayoon daf ñoo aayoon wutee wutee rek parce que xamoo li waa wax yow xam-xam yow lépp da ko war a dajal affaire bi du noonu de waseewu mbir zaatu ci jëmmam yu qaal lañu wax fil muamalat ci jëflante yi fil fiq ci fiq mboolem jëflante yi ci fiq loolu lañ ci wax kal buñu comme jaay xaasatan ci dog jaay masala yi ñëw ci jaay yu néew la gén borom xam-xam yi génn nañ ci masala yu bëri wutee ci wutee bu bëri walam yaqul waxut ahadun kenn min al muslimina si jullit ñi ne haadi lii bidaun bidaa la lam yafalaa defut ko rasulullah ci yàlla sallallahu alayhi wasallam wala sahabatu sahaba mi defuñ ko radiyallahu anhu yàlla yàlla na yàlla gërëm fa li ma léegi bu fekkee jullit ñi wutee nañ ci ay masala dégg nga yu bëree bëri bëri bëri wuutee goo xam ne yonentu deful ko sahaaba yi defuñ ko fa limaada isan tax kon laa yoqbal duñ nangu an takoonu mu nekk li suufee ñeen suufeyanki yoon yoon yoo xam ne nekkul lu may tudd yàlla tudd yàlla yonentu daan na ko joxe daan na ko def eh, ana problème bi bu fekkee xam-xam ñu wutee yow nag ngay gis xadis yonentu yàlla Muhammad sallallahu a a wér xam nga man damay bañ yenn xadis yi sax yu ñuy jam moo tax may laal yu dëgër dëgër yi waaye am na xadis yoo xam ne wér na waaye ñoom duñ ko nangu يونتي من فلاشيا بعده دار دار دار حمود غنايل سوفيان كي ام لول ام شي خم خم يبري يمشي جلي غويد ديكو مو امر بنن حديث يونتي الله antal awalu yaa njëkk falaysa qablaka shay'un dara njëkkul la yow jullit bi nga dee gis yàlla dara jiitul ko ba muy nekk dara nekkut ak moom gëm nga loolu yonent ne wa antal axiru yaa mujj falaysa ba'daka shay'un sa gannaaw dara nekku fa waxut ne bu àdduna bi tukkee yow yàlla yaa des de yow yàlla sa gannaaw dara nekku fa wa anta zaahiru yaa feeñ falaysa fawqaka shay'un dara farewul la kaw man laa nëbbu wa antal baatinu yaa nëbbu falaysa duunaka shay'un dara génnu la hadis bi yow boo ci amul dégg-dégg su fiyank bi am na ci ay dégg-dégg nga ko يرنتو واحد أصدق كلمة قال شاعر كلمة لبيت على كل شيء ما خلى الله باطل كاد جيجن دب ويكاد مسكوا بين رواية من أصدق كلمة قال العرب كاد جيجن دب عرب مسوا موي كلمة لبيت كون لب العرب مسوا لسجن دب موي بعد على كل شيء ما خلى الله باطل لب لرويال نال yow amoo ci dégg-dégg Sufyaan ka am na si dégg-dégg nga weddi te moom ci ay xadis yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk di sukkandiku bu fekkee yeneen yéen a jaaxal yonent bi moo waxal boppam laa tasubbu daara fa bu leen saaga jamono yàlla mooy jamono daa la mooy jamono loolu yonent waa ji bu waxee <laughs> yàlla mooy nangam loo ko weddi yaa amul boo amul dégg-dégg amul caabi yu mën a ubbi lu mën a ubbil mukk xadis bi maani yi nekk ci xadis bi xam yàlla yi nekk ci hadis bi doo noppal ki nga xam ne ni moom yàlla ubbil na ko loolu in lam taral hilaala fa sallim li unaasin ra'awhu bil absaari bu fekkee mënoo gis weer wi mayal jàmm nit ñi nga xam ne gis nañ weer bi ak seen i bët waaye gisuma weer bi keneen gisu ko ku ne gis naa ko fi ger jug loolu la xéeféer yi nekkoon loolu loolu tas àddina lu tax nangule leen dégg-dégg tax nangu leen ko daal bi anna laahu alxaq wa anna maa yad'uuna min duuni albaatil yàlla ne lépp lu ñu xoote leneen dul yàlla neen la yàlla rek dëgg bàyyi daan wax ne wala dafay wax ne dul yàlla neen la waaye gëmu ko waaye mooy neen dul dara ye hmm? Hmm? su ko defee kon affaire yi bakk na ci rax am na ñoo xam ne ay suufiyanke lañ sax waaye ñoom buñ gisee seen morom bu leen rawit ñu weddi ko maanaam état bu nekk dafay weddi bu ko faree kaw ki nekk ci premier premier étage ma ngay weddi ki nekk ci deuxième bi ki nekk ci deuxième bi di weddi ki nekk ci troisième bi ki nekk ci troisième bi di weddi ku nekk ci bi tel la ñu kër gi rek di xeexante rek ku nekk jël xeet di sànni sa morom te naa ko nekkoo ci kër gi te mu ngi ci kër gi da ngeen a bokkul rek dafa laa gën a kawe waaye mu ngi ci kër gi mu ngi ci kër de da ngeen a bokkul appartement nekkoo si kër gi parce que sa bunt bi ak sama bunt bi niroo wuñ waaw ah gis nga ñun suñu néeg ak suñu néeg yi bokkuñ waaye day ma ne da ngeen a bokkul appartement da ngaa kaw waaye muñ si kër gi buñ la waroon kër gi nga xam ne kër gi ay yi yu la hmm? islam benn école loon boo xam ne benn classe la amoon mu yonentu moo doon jàngal ñëpp waaye gannaaw bu mu fi jógee dafa am classe yi classe kii di jàng fiq waa classe fiq rek bu ñu wedd ñee di jàng naxu ñee jàng naxu rek bu ñu wedd ñee di jàng ay axlaaq ay jikko ñee di jàng axlaaq rek bu ñu wedd ñee di jàng ahkaam ay atte yi ñee di jàng ahkaam rek bu ñu wedd ñee di jàng balaaxa ñee di jàng balaaxa rek bu ñu wedd ñee di jàng arut dëgg si ci jamono yonent bi classe yi beroo wuñu woon affaire yi ko wutoon lépp moom moo doon ustaas bi moo doon école bi moo doon jàngale lépp waaye gannaaw gën a nit ñi at loolu moo tax ñu nekk degoo ci benn mbir yar ci xeetu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam buñ boolee jëm ñuy benn yonentu ñëwaat waaye di weddi rek moo tax mooy commandeur fuqaa comme ne nga xam ne borom xam-xam fuqi am nañ mazaay ba ay yoon waaraa ngay gis-gis muxtalifatu yu wuutee fi mazhabin waahidin ci benn ngir xawla masalatin waahidatin ci benn masal wala axrabu li gënal tumbaak min kulli zalik ci loolu lépp annaka ne yow te yu da nga fekk baalum ñenn ci ñoom yeddaawna ñuy woote anna kalimatu subul ne baatu subul bu yàlla waxee subul ay yoon rek temps ni dañ si na mu atruq suufee yoonu suufiyanke yi fa fa min ay na lahum zaalika ana fu ñu jëlee loolu ay na maakaar ndax saa yu nekkee jamaan di mbooloo bi maanaam isa jumaa bu ñu defee jamu subul baatu subul temps ni dafay na mu atruq suufee yoonu suufiyanke yi wa isa ofrida bu ñu ko defee mufrad yaa ni mun a mu ci al wahaabi wahaabi ndax loolu lañ bëgg wax loolu ku leen ko firi ah waxal raaya te gis nga li yàlla wax ne la hadaynaahum subulanaa dañ leen jubal suñu yoon kon fa nahnu ñun hunaa fii naqbal danañ nangu an takkoon mu nekk ak turuqu suufee yoonu suufiyaan kii di subul ndax alquran nee na ñooñu la yàlla jubal li an naa ndax yoon yooyu kullaha lépp ilallaahi ci yàlla jëm su ko defee dëgg-dëgg ñàkk dégg-dégg ak bañu fiir ci lislaam rek ak caaxaan rek dëgg-dëgg moo waral wutee bu bëri bi ak dóorante bopp bi politique la waaye du diine in urida al islam mastatuma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu